ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة العين المجيم ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة العين المجيم يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhi wa qudwati wa wasilati ila rabbi ta'ala al-abdi al-qadimi qaada allahu maxtaara lahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi seen mbokk Alioune Badara Ndiaye ci xasiiday sëñ Tuubaa yi mu baaxoo ànd ak yéen incha allah dellu siwaat na ci kàttanul boroomam subhaanahu wa taala ak ndimbalam di indi geneen xasiida ci xasiiday sëriñ bi su ko defee xasiida gi muy xasiida gu siiw xasiida goo xam ne bokk na ci xasiida yi nga xam ne yi sëñ bi njëkk taalif ndax ci xasiiday géej gi lay bokk mooy ya xayra dayfin yaa xayra dayfin sëriñ bi da ci way weeru koor ak di ko ca tagg ak di ko ko nuyul maanaam dafa wax ne dafa def xasiida gi ngir nuyoo ko weeru koor ngir nuyoo ko ko xasiida gi yaa xayra dayfin ni ma ko waxee léegi sëriñ bi moo wax jamono ji mu ko taalif mi ngi ko taalif bisub altene ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom ci gàddaayu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te boo ko indee ci ati tubaab bi muy nekk mille huit cent quatre-vingt-dix-huit kon xam ngeen ne sëñ bi mille huit cent quatre la demoon ci tukki ba kon quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize 97 98 kon daa mel ne bi mu demee ci tukki ba ba am ci ba am fa ñeenti at la def xasiida gi xasiida gi fii la tàmbalee bismillah maa ngi tàmbalee sama xasiida gi ci tudd turu yàlla sama borom subhaanahu wa taala arrahmaani yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmane ju matale ji arrahim yàlla saa borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy borom ja nga ko soob mu jagleel ko yërmande ji ëllëg yowmal xiyaam bismillahi rahmaani rahim waxoon nañ ko ci xasiida yi jiitu woon ab jullit ci la war a tàmbalee ndax lépp lu ab julit di def da ko war a tàmbalee ci turu boromam subhaanahu wa taala mooy tax jëf ja baax mooy tax jëf ja am barke waaye bu ko ca tàmbaleewul rek jëf ja day day manqué mu ne wa sallallahu yàll na yàlla dolli tedd nga taala yàlla mi nga xam ne mooy aji kawe ja ala sayidina ci kaw sunu sang ba wa mawlaana tey sunu kilifa ga muhammadin da mooy sayidina muhammad wa alihi ak waa këram wa sahbihi ak ay sahabaam wa sallama tamu dolli ko ak wóolu tasliman ak dollee wóolu dafa julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa ni ko alquran diglee inna allaha wa malaikatah yusalluuna ala annabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ne ko saa borom diglee subhanahu wa taala ci suratul ahzab mu julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye julli ci ay ñoñam julli ci ay ñoñam waaye julli ci ay saxaabaam diggante ñan ñooy ñoñ ak ñan ñooy saxaaba waxe waxee daa gudd te bari moo tax du ñu yitteel lool fii ñu di ca guddal ginnaaw ba loolu jeexee nag mu daan xadistahalla teew na wala mu ne feeñ na ramadaanu weeru koor wadi wuñu màggal mu ne weeru koor bi de ñëwati na weeru koor ñëwati na xadistahalla ñëw na dikk na teew na ramadaanu weeru koor almuazam madi muñu màggal weeru koor nga xam ne lu yàlla màggal la de ak ak alhamdulilah jamono ji ñuy firee xasida gi mi ngi tombeek ñu nekk ci koor defe naa tey la ñeenteelu fan ci weeru koor gi weeru koor gi nga xam ne mooy koorug 2018 incha allah kon jamono ji ñu naan weeru koor teew na sëriñ bi fekk na jamono ji ko sëriñ bi waxee ci xasida gi ñu tollu ci xasida gi di ko tekki tolloog weeru koor teew alhamdulilah yal na eh, barke bi ko sëñ bi doon teeroo wàcc suñ kaw ñun ñëpp ak mboolem jullit ñi mu ne a koor di ñëwatina na te weeru koor lu yàlla màggal la mu ne allahuma yow sama boroom sëñ Tuubaa mooy wax ak boroomam inna xabibi naka sama soppe bi wa xalil ak sama xarit ñu ne ko kokkan la mu ne chahra ramadan mooy weeru koor xad la ñëw na aleya ci man yàlla sama xarit bi day muy weeru koor di sama soppe ñëwati ñëw na fekk ma fi xadista xal ñëw na gane ma kañ lara ganesi si mu ne yow mal isnayni bisub altini ci man at mu ne aama xamsata asara wa thalaatha mia wa alf atum junni ak yetti téeméer ak fukk ak juróom waxoon naa dat bi léegi nee na weeru koor ñëw na bi bi ñëw fii la ma fekk bisub altine ci at mi wa raxabtu ma ne ko marhaban wa rahabtu bihi ma ne ko marhaban ma ne ko dalal ak jàmm mooy ma yaatal ko bi mu ñëwee de xët xëtaluma ko tiituma ni ko njóobi nii defee nga xam bu weeru koor jub see ñu tiit lool ngir topp gañ bëgg a topp seen bakkan xam nañ ne weeru koor da leen ni tee def loola sëñ Tuubaa nee na weeru koor bi mu ñëwee te nekk sama xarit di sama soppe ci at mii mu ñëw gane si nee man dama ko yaatal wa rahabtu bihi ma yaatal ko ma wax ko marhaban waaye dikkal dikkal ak jàmm te ci biir xasida gi dana dana ko ci waxaat wasallamtu alayhi man nuyoo ko bi haadihi al qasidati ci xasida gi may waaj a ñëw gis nga ko kon waxoon naa xasida gi li ko tax a jóg mooy da ciy nuyu weeru koor gan gu mag gi ñëw ganasi siko mu defal ko ak xasida di ko tatagal di ko wax dalal ak jàmm di ko wax ay baax baaxam di ko wax ngëneel yi nga xam ne eh, moo ci nekk incha allahu wa sallamtu ma nuyoo ko bi hadihi qasida ci qasida gi moo tax mu ne fa taqabbalha yàlla nanga ka nangu min nii jële ci man fa taqabbalha yàlla nanga ko nangu innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ñi ragal yàlla ñooñu la yàlla wax na moom dana nangu seenug jaamu fa taqabbalha yàlla na nangu xasida gi min ni bàyyi ko ci man wa barik lii ta nga barkeelal ma ko waj'alha ta nga def xasida gi fawqa danni mu kawe sama njort fit daarayni ci àdduna ak àllaaxira yàlla na nangu liggéey bi yàlla na nga ci def barke waaye yàlla nag ma ci defal loo xam ne dana kawe sama njort ci adduna ak ci àllaaxira mu ne allahuma yow sama boroom rabba ramadaana yow mi boroom weeru koor yow sama boroom yow mi nga xam ne yaa moom lépp yow yaa moom weeru koor maa ngi lay woo di la wax lan di la yóbbante mooy lan mooy sallim lii nanga nga ma nuyul ramadaana weeru koor hmm. sëriñ bi na suñ borom maa ngi sàkku ci nga nuyul ma weeru koor xam nga xasida gi nee na woon dama ci nuyu weeru koor sallim lii ramadaana nang ma nuyul weeru koor wa sallim nii li ramadaana nanga ma nuyu ngir weeru koor maanaam weeru koor moom nama ma fay ab nuyoo waaye na jaare ci yow benn nuyoo bi yàlla la sëriñ bi sàkku ci moom ne ko nga nuyul ma ko te weeru koor it nga nuyu ma ngir moom min ni te nga nuyu ko nuyu goo xam ne day bàyyi ko ci man wasallimhu te nanga ko nuyu ni jële ci man wasallim nii te nanga ma nuyu minhu gu bàyyi koo ca moom yooyu yëpp rek eh, ay xeeti waxin la yoo xam ne wax ji baat yi du bokk te maanaa yi doon doon benn mu daal weeru koor na ma nuyu comme weeru koor yur làmmi yooyu wax yow yaa may nuyu wuutu ko su ko defee may nga nuyul ma ko wajalhu danga def xasiida gi wala ta nga def moom weeru koor mu ta xabbalan wala boog ta def nuyu bi mu ta xabbalan mu nekk lu nu nangu yàlla na yàlla nangu ko nangu kon xasiida moom bu dee abyaat yi foofu la tàmbalee bayit wi njëkk mooy yaa xoyra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi mu ne yaa xayra dayfin woo naa la yow ngën gi gan ata joj dikk na bil bishri ànd aki wal madadi ak tëbbi xéewal yu amul fu mu yem yu gudd rek te du am fu mu mukk ahlan dalal ak jàmm ahlan wa sahlan ñaari baati arab la yoo xam ne dañ koy wax gan ngir jublu ko yaatal wala nga ne ñett sax mooy ahlan wa sahlan wa tarxiban ahlan dafa dafa jóge ci ahlu gi firi ñoñ ahlu gi firi maanaam eh, aalu rek mooy sawaa kër gan gi ñëw nga ne ko ahlan maanaam agsi nga agsi nga ci sawaa kër jàppal ne daal yàgg waa kër gi yéen a yem loo fi amul daal lu fi waa kër gi war a am rek am nga ko fi wa sahlan mooy da koy wan na ko fii de lépp loo fi bëgg dana yomb wa tarxiban da koy wan ko fii de yaatu nga fi na nga na man sa kër ci ak yaatu man ko ko fii ahlan wa sahlan dalal ak jàmm wa tarxiiban akuk yaatal maa yaatal bila adadi ci lu amul fu mu yem yow kër gi amoo fi limite ah la mu waxoon ca nahju qadaa'il xaaj ne manziluna li man zaara suñu kër de képp ku fa ñëw moom kër gi daal daanaka rek yow waa yaa waa kër gi yéen a fi yem. kon mu ne ko yow weeru koor mi nga xam ne yaay gan gi gën ci gan yépp ndax yow booy ñëw da ngay indaale sëricë te sab sëricë moo gën sëricë yépp sëricë bi mooy lan mooy ata bil bishri wal madadi da ngay indaale ay mbég weeru li ci nekk ci ngëneel ci ni ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nettalee nga xam ne dañuy tëj bunti sawara yi ubbi bunti àjjana yi jéng seytaane yi nga xam ne jimmi àjjana sax dañuy wax ne dañ koy waajalaat jimmi àjjana dañ koy waajaraat mel ne bu doon adduna rek ñu ne dañuy génne photo yi fa nekkoon dégg nga génne télévision ya génne moquette yëpp changé ko def fa yu bees bu jaree peinture ñu peinture bu jaree karawaat ñu karawaat ci weeru koor àjjana day day sañsewaat weeru koor mi nga xam ne képp ku def ci yow benn ñu fëlal ko ñu fëlal ko ko ay junni te budul weeru koor boo defee benn fukk lañ lay fay yow da ngay indaale ay mbëkk indaale ay xéewal kon gan yëpp yow daal yaa ci gën mu ne ma ne ko ahlan wa sahlan na nga dal ak jàmm wa tarxiban eh, tayit na yaatu bila adadi ci loo xam ne amul ab limite amul kenn du wax fii nga sañ a dem bul dem fee laa silta mosoo dañ yow weeru koor dayfan di gan guy aji tedd zairan gudi ab siyaare waa kon guy aji siyaare abat fawo mukarraman di ku berndeel bi xirapaati ci berndeeli jaamu yàlla ak topp yàlla wa sadadi ak i njub mu ne yow gan nga goo xam ne naka jekk gan gu tedd nga waaye gan nga goo xam ne doo jëlal mukk at mu jot daga ñëw siyaare doo ko demaat weeru koor ne yow gan gu mën a matal kóllëre nga ndax yow at mu jot danga ñëw siyaare ñu dem xam naa njóobee ne bu ñu sañoon weeru at mu jot du ñëwati <laughs> waaye sëñ bi moom euh, tabarkàlla kon nee na ko ñëw ñëw gi ngay ñëw at mu jot nga siyaare ñu loolu daal tew tawfiix la doonte njóobeen yi taxut ñu taamu ko laa silta mosoo dañ day fan di gan kariman ju aji tedd saa iran ju aji siyaare ñu abadan faawo waaye gan nga goo xam nag boo ñu siyaare see liñ lay ganale lan la du ay lekk du ay naan waaye mooy ay jaamu yàlla mu karraman eh, di ku ñuy berndeel bi xirab taade ci berndeeli topp yàlla wa sadadi ak njub weeru koor bu ñëwee gan la goo xam ne liñ koy berndeele mooy dolli ko ak ragal yàlla ga alxuraan waxoon ne laallakum tattaquun ngeen gën cee mën a ragal yàlla ndax kat eh, weeru koor sa alal ji moom dañ lay wax ne doo ko sañ jëfandikoo loolu dalay jàngal ne la kon alali jàmbur tëxut a wax sa soxna si nga xam ne dalaa doo mën a jaxasoog moom loolu dalay jàngal ne la kon soxna si jàmbur tëxut di wax eh, noonu rek la kon nee na yow boo ñëwee alxuraan ju bari naafila ju bari salaatu ala nabi ju bari ak dolli ko ragal yàlla loolu nga soxla ci bernde waaye soxlawoo bernde ay lekk ak naan boo ñëwee ak njub rek nga soxla kon soxlawoo soxlawoo leneen. yow de gan nga goo xam ne gan gu fonk wëllëre nga ca tàmbali ba gan nga koo xam ne musoo dañ mukk di ñu siyaare waaye gan nga goo xam ne boo siyaar see li nga bëgg ñu berndee la ko mooy ay jaamu yàlla ak njub. mu ne ko muazzaman ngay ku ñu màggal inda buur ba nga xam ne la sharika lahu déet jenn aji bokkaale di ko ñeel wa inda ahli tuqaa ku ñu màggal nga tamit fa ñooñ ragal yàlla wala ilmi ak ñooñ xam-xam wa rashid ak ñooñ njub mu ne weeru ku yàlla màggal nga ku la màggalut fa yàlla moom ko fa màgg nga yàlla ma nga xam ne amul dendandoo ci dara saa borom subhaanahu wa taala deesu ko dendaleeg dara bokkaale euh, boo ko bëggoon tënk ci gàttal rek dañ naan mbubb moo xam ne saa borom subhaanahu wa taala moo ko moom nga jël ko solal ko keneen ku dul moom mbubb moo xam ne suñu borom subhaanahu wa moo ko moom saa yoo jëlee mbubb mooma dem solal ko keneen ku bokkut ak moom loola su boobaa mooy bokkaale ci misaal saa yoo xamee ne yaa ngi wax ne sama wërsëg wii ku dul yàlla moo ma ko defal su boobaa rek loolu mi ngi dugg ci bokkaale ndax yàlla rek mooy arrazaq mooy joxe wërsëg waaye nag boo nee sabab bi tax maam ko ci diw la jaare waaw kay loolu mën naa nekk naka noonu boo dara ci yi nga xam ne saa moo ko moom muy asamaana mi muy suuf si muy bind nit ñi ci misaal nga wax ne am na keneen ku bind ku dul yàlla suñ borom subhaanahu wa taala loolu day dugg ci bokkaale kon tënk boobu mooy tënk bi gàttare bokkaale lu garaaw la sëñ Tuubaa nee na laa tusriku billaahi yaa ixwaani bu leen di bokkaale yàlla yéen mbokk yi maa ngi leen koy dénk ndax bokkaale kat ku ko faatuwaale te tuuboo ko saa borom subhaanahu wa na ci sawara rek nga jëm yàlla ci yàlla musal kon nuy bàyyi xel rek di bañ a ëppal fexe ba yàlla nu xam ko xam ne moom buur la boo xam ne moo bind lépp moo moom lépp fexe ba yonent yi ñu xam leen wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne li baax baax nag ay jaami yàlla lañ ay mbindeef lan comme noonu xul innama ana basharun mislukum waaye nag yuuxaa ilayya mbindeef laa ni yéen li ñu wóotale rek mooy yàlla dafa maa yónni di ma xibaar ñu xam sunu sëriñ si ñu xam ne ay nit ñu baax lañ ñu ñëw tegu ca tànk ya yonantu ya jaaroon di liggéey liggéey yu mel ne ya yonantu ya doon liggéey lu leen yàlla may ci ay kiimaan ak nangam nag bu mu tax ñu bëgg leen a jaawaleek yàlla saabro subhanahu wa taala loolu ëppal lay doon muazzaman ku ñu màggal nga yow weeru koor inda rabbin fa buur ba nga xam ne la sharika lahu dir jënn aji bokkaale nga xam dañoo ragal yàlla ñu màggal weeru koor lanu wala ilmi waroom xam-xam tey jëfe seen xam-xam ñu màggal weeru koor lañ war rachadi ak waroom jub yëpp boroom xam-xam boo déggee ma teg ci jëfe xam-xam bi daa fekk ne ku am xam-xam te doo ko jëfe da nga dul borom xam-xam moom la sëriñ bi da wax ne inna allati lam yaxsha rabbal alamin mu ne laysa bi aalimin kooku du borom xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulamaau ñi ragal yàlla daal ñooy borom xam-xam kon ku ragalut yàlla rek doo borom xam-xam mu ne ko laasil te mosoo dañ ya weeru koor maaxiya awsaarin di far ay bakkaar wa qaadiya awtaarin tey faj ay aajo ci coobare yàlla wa taarida axyaarin tey dàq ay way bew minal xaladi ci béel ci continuer mooy loolu loolu musta dañ loolu danga ko danga koy dëkk di def rek yow weeru koor weer nga koo xam ne suñ borom <clears throat> day jéggale bakkaar yi ndax nee naa la yonent bi salaa sallam nee na woon fukk yi nga xam ne mooy fukk yi nekk ci digg bi njëggal la kon day far ay bàkkaar waaye day faj ay aajo loo ci ñaan saa borom nangul la ko waaye day dàq seytaane euh, te waxoon nañ ko ca jéng ba jéng bi ñuy jéng seytaane nee na koor yëpp da koy def wa soofidan tey aji jéng andi na ko benn yoon tënk weeru koor weer nga woo xam da ngay tënk seytaanin bépp seytaane bi ma maaxoo ak képp ku ànd ak moom dangay tënk seytaane képp ku ànd ak seytaane bokk ca bu seytaane dañ dañ koy tënk ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi moo ko jàngale woon noonu wa mutxifan te ngay aji may bi safadi ca sell ga li sawil ihsaani ñeel waram rafetal ya képp koo xam ne dafa fetteerlu di seytaane di yàqkat weeru koor bu ñëwee da koy tënk yeew ko sànni nee waaye koo xam ne day jaamu katub yàlla di rafetal kat nag weeru koor da koy gën a yokk ak sell mooy kama kutiba ala lasina min qablikum laallakum tattaquun weeru koor day bëgg ñëw ngir sellal ngir nit ki dolli ko ci ak ragal yàlla wa mudhiban ngay aji dàq ngay aji yóbbu ngay aji demee kulla axdaanin bépp njàqare na diiqu boo xam ne dananu xate bii ca moom fi ci jamono af iddatan xatu xol yaa muzhiban nakadi yow weeru koor yow mi aji dàq tiis ya ak njàqare ya nee na yow ci la ci ci yow la suñ borom di jaare musaluñ ci lépp loo xam ne daf ñoo jàqloo woon di ñu xatal jafe-jafe yi ñu amoon stressé ci jafe-jafe xol sun bàkkaar yu bari nu ñuy fexe ba yàlla jéggal nu ko sun problème yi képp ku jaar ci weeru koor mboolem loo bëgg ci yooyu suñ borom defal la ko mboolem looy ragal bëgg suñ borom dàqal la ko boo ko ci ñaanee mu dàqal la ko ndax nee na waxoon na ci ginnaaw ma aw zaarin wa xaadiya aw ñaar yëpp am na ci nee na yi ñu amoon ci yow la yow la suñ borom di jaare dàqal ñu mboolem njàqare yooyu yëpp nga xam ne ay mba njàqare yu ñu tiis la wasa idan musoo dañ di aji dolli kulla aamin mépp at maa loo xam ne nafoosu dananu texee bii ca loolee min juudi mux nin mi ngi bàyyi ko ji tabuk yàlla mi aje doylu ja karimin yàlla mi aji tedd ja naafiin yàlla naafii zayadi yàlla mi nga xam ne mooy aji eh, maanaam jariñ ja nee na weeru koor mësoo dañ di andil dinu andil loo xam ne ci sababu loolee ci la ñuy texee te loolu bokk na ci alquran weeru koor moo ni andil alquran ndax alquran noonu ko wàccee ci biir weeru koor te alquran kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra wa uxra minal karbi kon moo ñu indil alxuraan te alxuraan sëñ bi nee na téere la boo xam ne ci la ñuy yaakaare yërmande yàlla ci la ñuy yaakaare mucc adduna ak àlaxira kon weeru koor moo ñu ko indil loolu nag mi ngi bàyyi ko ci saa borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy aje tabeja mooy ku tedd ka nga xam ne mooy ka nga xam ne mooy dolli xéewal ya muy tàgg weeru ba léegi mu ko yaa shahra rabbin ya e yow woonaa la yow weer wi nga xam ne weeru buur nga ban buur mu ne karimin buur bay aju tedd yow mi nga xam ne yaay weeru yàlla mi nga xam ne mooy aju tedd ja fii ka ci yow de jaadala naa ci lañu ñu maye moom yàlla bi laylatil qadri ci laylatul qadr daatil fadli laylatul qadr mi nga xam ne mooy borom ngëneeli wa raxadi ak i xéew ak i ee eh, yow weeru koor ee eh, yow weeru yàlla wi yow weeru saa borom mi nga xam ne ko tedd la yow day bi bi yàlla di may bi nu yàlla di may laylatul xadri ci sa biir lañu ko mayee suñ borom laylatul xadri nga xam ne lu mat juróom-ñett fukki at jaamu kotu yàlla ba di ko jaamu yàlla di ko xeex ci yàlla di woor di naafile guddi yi suñu borom defal nu ko ci génn guddi rek boo ca defee dara luy gërëm loo yàlla suñu borom fayee la lu ëpp loolu ndax daa wax ne xayrun moo ko gën mu nag yow weeru koor ci yow lañu suñ boroom joxe laylatul xadri mii nga xam ne borom yi ngëneel la waaye borom yi xéewal la ngëneel nag mënta weesu loolu yi nga xam ne moom laa weesu léegi ci ay toyaaba yu rëy ne ko inni naka man sëñ Tuubaa de uhibbuka bëgg naa la xubba zaati bëgguk jëmmu bëgg naa la bëgg goo xam ne amul sabar dama laa bëgg rek ngir sa jëmmu dama laa bëgg rek ngir yàlla. bëgguma la ngir nangam wala ngir nangam déedéet dama laa bëgg rek yow sa jëm bëgg la ngi jëm yàlla daa talabin may borom sàkku nag min maaliki ci yàlla mi ki ma moom fii ka ci yow isaadan ak texe bila awadi gu ànd ak ay dëng-dëng yow weeru koor wi nga xam ne ci yow la yàlla def xéewal yee bëgg naa la ngir jëmmi yàlla teyit maa ngi sàkku ci yàlla sama borom ci yow maanaam ci sa biir maa ngi nekk ci biir weeru koor di sàkku ci yàlla mu defal ma ci weeru koor texe goo xam ne du ànd ak mukk ak texe di wala du ànd ak mukk njub goo xam ne du amati mukk ay dëng-dëng mooy isaadan bi daa awat awat mi mooy firi ay dëng-dëng ci mbokk yi topp baat yi za tawbatin mooy boromuk tuub fiika ci yow aydan ba tey maadiyan di aji wëy abadan faaw bi zikri ci tudd yàlla saa borom subhaanahu wa taala wa shukri ak ak ak sant ko wal qur'aani ak jàng alqur'aan lil ahadi ngir jëmm yàlla mi nga xam ne mooy kenn ci sa biir it ci lay yeesalaat sama tuub ci lay yeesalaat sama tuub tuubug nit ñu baax ñi nag mooy xasanaatul abraari sayiaatul muqarrabin boo déggee sëriñ mag bi di wax tuub nekkul ne dafa def ay bakkaar wala yu mel noonu waaye ñoom daa am lu ñu tudde bàkkaar dafa am nu ñuy tudde bàkkaar euh, nañ jàpp woon yàlla démb tey bu bu tey jotee ñu gën a yeewu ci yàlla gën a xam yàlla seen kii seen daraja ci yàlla gën a yokk ñu gën koo xam day tax dañuy xeeb la ñu defoon démb moo tax dañuy jàpp ne lañ defoon démb bàkkaar la moo tax ñu ne nit ku àgg ci yàlla li muy tudde bàkkaar sama maas gi sàggan gi buñ ko defoon daraja ju rëy rëy lay doon lay doon mu ne ko maa ngi tuub tuub goo xam ne nag maa ngi cay boole zikr ak shukuru ak jàng alxuraan joo xam ne mu amul fu muy yem maadiyan da koy da koy saxoo di ko continuer kon sëñ bi jàngal lañu fii ci biir weeru koor yi ñu a def kon war nañoo góorgóorlu ci tuub yonent bi nee na woon man de ki ki nekk ci biir weeru koor ba weeru koor génn mu desee bàkkaar kooku jaaxal na ma sàggan kooku daal yéem na ma moo tax sëñ bi nee na nañuy tuub fii waaye di bari zikr zikkar ji bari lu ñuy tudd yàlla waaye di di ko sant ak sukkur nag mooy sant goo xam ne da koy da koy sant ci jëf da koy sant ci jëf suñ borom lii nga ma defal li ma lay sant ne mooy sa ndigal yi moom kenn duma ma ci man loolu mooy sukkuru waaye góor góorgóorlu ci jàng alxuraan ndax ci weer wi lañ ko wàcce woon lépp na nga def ko ngir jëmmi yàlla mu ne ko xat tubtu tuuboon naa sax nag ilayhi jëm ca yàlla mi ma moom saa borom fi shaabaana ci weeru baraxlu wi an rajabin ak weeru rajab waaw man sax nag wenn weer dudul jàll tax na tuub ba jëm ci yàlla weeru rajab bi nga xam ne moo jiitu woon tuuboon naa ca jëm ca saa borom subhaanahu wa taala weeru shaabaan mooy weeru baraxlu tuub tuubal naa ci suñu borom waaye nag lu tax may tuub ci yaw mooy lan mooy mu jaddidan damay aji yeesal nag tuub ga fii ka ci yow fashhad lii nang ma seede bi tarki dadi ci bàyyi lépp luy caaxaan lépp luy muurant lépp lu amul njariñ daddi mooy loo xam ne rek ay ay folaak yi caaxaan loo xam ne du la jural benn tuyaaba nga xam ne donte sax mën naa am doo ci amee bàkkaar waaye dala du jural tuyaaba ne tuuboon naa ci Shaabaan ak rajab waaye tuub ga maa ngi koy yeesal tey ci yow mu jaddidan fii fiika na nga ko seede ba bu ëllëgee yomal xiyaam nga seede ne al abdul xadim mii day lépp luy xeetu caaxaan lépp lu yàlla gërëmut bàyyi na ko te seedeloon na ko ci sama biir man weeru koor ci sëñ Tuubaa day seedaloo weer yi yi wa ayyaam yi xadat lii shawahidun bu léegi yowmal xiyaam dañ may dañ may seede dégg nga doon na wax géej ga naan ko ishhad bi anni abdullahi wa xadimu rasulillah see na nga bu ëllëgee ne man jaamu yàlla di liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam washhad bi hubbika dana ko dana ko dana ko waxaat kon sëñ bi day seedeloo yu mel noonu ndax moom mën naa wax ak ñoom mën naa waxante ñoom moo xam ne muy def waxante ak ñoom nag loolu sama mas gi tuuti nañ ci xam ko waaye daal tuuboon naa ci saxbaan ak rajab tuub gi maa ngi koy yeesal te na nga ko seede na bàyyi naa lépp loo xam ne amul du jur njariñ du jur tuyaaba mu ne ko lishat na nga seedewaat ne lishat na nanga ma seede bi aksi ti samak jàpp kitaaballahi téere bi yàlla bi fii ka ci yow weeru koor hunaa fii ilerti xaaliya ba ci samak dem yow ma sabti ci bisub gaaw wal yi ak bisub dibéer maa ngi lay seedeel ne wala boog nang ma seedeel ne téereb yàlla bi jël naa ko jàpp ko def ko muy sama mbir téereb yàlla bi jël naa ko def ko muy sama wérdu jël naa ko def ko muy sama wétal rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi jël naa téereb yàlla bi def ko muy sama wétal def ko muy sama lépp nang ko seede ta ci yow weeru koor laa ko defee loolu nang ko seede ci yàlla li ko tàmbalee tey ba keroog may may may dem keroog may départ bisub gaaw ak bisub diméer loola nag ban départ la ci jublu xamunu ko xëy na bisub gaaw wala dibéer daa waroon a jóge ci ab dëkk war a dem ci benn dëkk xëy na muy leneen moom moo xam lam ci jublu jàmbu xeebu bi xamu ko waaye daal nang ma seedeel loolu ne jël naa wee jël naa alxuraan ci biir weeru koor jël naa ci alxuraan def ko muy sama lépp féete woo ko li ko dalee tey jii hunaa fii may waxe yow ilartihaaliya ba ci samak laxas ila yow ma sabti bisub gaaw wala ahad ak bisub dibéer mu ne ko washhad na nga seedee yow weeru koor nang ma seedeel bi xubbika ci bëgg gi ma la bëgg di bëgguk jëmm bëgg gi ma la bëgg ngir jëme yàlla amul sabab nang ko seede yaa amali yow mi nga xam ne yaay sama mébét yow mi nga xam ne yow saa yoo déparé rek ma yéene waat di mébétaat na waaye waaye yàlla na weeru koor ñëwaat fekk ma fi yaa amali yow mi nga xam ne yow laa bëgg yow mi nga xam ne yow laay teeroo waxtu wu nekk di la séenu ngir nga ñëw wakkun na nga nekk xabibiya di samab xarit ma la xawli bisu tiit ba wal kamadi ak njàqare la mu yowmal xiyaam ah, bëgg naa la fii ngir jëmme yàlla bu ëllëgee yowmal xiyaam maa ngi ñaan yàlla mu def ma la ngay samab soppe mu ëllëg bis peñ ba nga xam bisu tiitaange la waaye bisu njàqare la bisu tiitaange la bisu njàqare la inni naka man sëriñ Tuubaa uhibbuka bëgg naa la yaa shahra siyaami yow weeru koor bila richin mbëggeel gu àndut ak ak naafiq fa ahlan maa ngi lay wax dalal jàmm wa tarxiiban maa ngi lay wax yaatal naa la bila adadi ci lu ab lim yow weeru koor bëgg naa la rek ngir jëmmi yàlla waaye mbëggeel goo xam ne amul riche lan mooy riche al riche mooy mbëggeel goo xam ne daa am loo ca lal dafa am lu rax ca biir waaw kii de mu bëgg nga ko waaye li tax nga bëgg ko mooy dafa nekk xale rek waaye bu màggoon nga bañ ko wala li nga bëgg ko mooy xaalis bi mu lay jox rek la kon mbëggeel gi dafa am lu rax ca biir mooy riche riche mooy boo jëloon am soow wala lem. léeg am na jaaykat yi dañ koy def moo tax sariya da ko tere mooy riche jël lem dolli ci ndox walla jël am soow dolli ci ndox di ko jaay dégg nga wala jël issance bu baax jaxasoo ko essence bu bon di ko jaay jël tàndarmay daaw jaxasoo ko tàndarmay ren jaxase ko noonu booy peese rek tibb peese noonu jël pepp mu ñaaw jaxasoo ko pepp mu kii am na commerçant yu bari yu koy def muy lu garaaw a garaaw lu yéeme loo xam ne. ay àq yu doy la yoo xam ne dama daa mën a topp nit ki sax ci àdduna wax maak ci àllaaxira riche lu bon la dañ koy tere Sëñ Tuubaa nag ne ko yow weeru koor bëgg naa la mbëggeel goo xam mbëggeel gu sell la jeex na mi ngi noonu mbëggeel gu sell goo xam dara lu bëgg rax mbëgg ngir jëmmi yàlla dara rëqu ci euh, Sëñ Tuubaa loolu dana ko faral di wax yonent bi sallallahu alayhi na ko lu mel noonu nee na daani ila madhi nabi ñu ne ko loo mu ne xubbu zaatihi nee na li tax may sonn di takk ci yonante bi salaa salaam day mooy bëgg ma ko bëgg dama bëgg jëmmam ci dama ko bëgg rek te yàlla tax bëgguma ko ngir daam lu may may wala nangam loolu day nekk riche gis ngeen boo ko seedoo kon fi xasida gi bayit wi la jeexe waaye bayit wu mel nii la tàmbalee woon yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi mu ne ko woon ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi gi nga fii tamit gis nga fa ahlan wa tarxiban bila adadi loolu bokk na ci rafetuk man a way man bëgg naa lay weer kon mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu sell la mbëggeel goo xam dara raxu ci maa ngi lay wax dalal ak jàmm di la wax aksel ak jàmm di la wax kër gi sa kër la bu fekkee gan la waaye nag amut ab limite bëgg gi ma la bëgg daal ak yaatal gi ma lay jaatal daal amut ab limite li ci de li ci tege julli ci yonent bi salaa salaam la mu ne allahuma yow buur bi yàlla na nga dolli xéewal wa sallim ta nga dollee wa baarik ta nga doolee barke ala sayyidina ci sunu sang muhammadin muhammad wa alihi ak ay ñoñam wa sahbihi ak ay sahabaam wacxaan ta nga def haazal ma bis bi ma doon defee xasida gi te mooy ci bisi weeru koor yi yow ma mudd yi mooy bis boo xam ne dama ciy woy rek bi ma ci loo xam ne tuhibbu da nga ko bëgg wa tarda te da nga ko gërëm abadan faawu bilal tifaatin ci lu dul may gestu leneen lu bokkut ak sa ngërëm wa taqabal te yàlla na nga nangu min nii jële ci man xasiida gi daan ne alhamdulilah sant day yàlla rek moo ko moo ko jagoo kon dafa julli ci bi salaa salaam ne ko maa ngi lay ñaan yàlla nanga def bis bii nga xam ne ci laa nekkoon di tagg weeru koor di ko nuyu ci xasiida gi yàlla na nga def mooy bis boo xam ne ci laay jaare rek wéy duma ma defati mukk wala may xenc wala may geesu jëm ci lenn lu sa ngërëm loolu maa ngi la koy ñaan te yàlla nag ma nangul xasida gi daal koy tëjee alhamdulilahi rabbil alamin nuit alhamdulilahi rabbil alamin googu ñu ngi koy tëjee ginnaaw bu xasida gi matee di ñaan suñ borom subhanahu wa taala nangul na ko te làqal na ko fi yàgg yàq égut di ñaan sëriñ Tuubaa yàlla na ko nangu te dugal ko ci liggéey bi muy liggéeyal sangam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam di jéggalu ci lépp luñ ci juum di ko jéggalu suñ borom di ko jéggalu sëñ bi di ko jéggalu warom xam-xam yi di wax ne rek ab jaam bu bëgg jariñ bëgg def lu baax rek bëgg nap nab nabi xam ne xam-xamam matewu ko di ñaan képp ku ci jot rek nga ñaanal Alioune Badara Ndiaye mi nga xam ne moo ko doon def suñ borom jéggal ko atte ko ci yërmaane defal ko saadatu daare ni waaye may ko ay xéewalu yaatu ak ay jumtukaay yu mu gën mën a liggéey la Serigne Touba wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa salliyan ala annabi wa sallimi waqdi bihi xaajata kulli muslimin ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة العين المجيم ومن نهاكم عن التعلم فهو خليفة العين المجيم